wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi diin yi jullit yi mbokk yi ñuy seetaan ak fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew ñi ngi leen di nuyu te di leen siyaara di leen nuyu nuyu bi lislaam asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal sunu borom mu yàggal ko fi te wéral ko di ñaan sunu borom tabaraka wa mu dolli xéewal ak tawféex ak jàmm ci sunu réew mii di Sénégal ak mboolem réew yi ci àddina bi yépp euh, gannaaw loolu mbokk yi ñëwaat nañ ci seen jataay bu am solo bii nga xam ne dayru Muxaddamatul Xidma daf koy def euh, di ci ànd ak ay boroomi xam-xam ñu gën cee miin euh, Sëriñ Mbàkke Abdurahmaan ci weer wu nekk ñaari yoon tey jii tamit ñëwaat nañ fii kon ci Daaru Salaam Ndaam fii ci kër Serigne Mbacke Abdourahman di borom xam-xam bu mag di mufti e, bokk ci ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk daara ju mag jii di université Cheikh Ahmadou Bamba waaye ngeen miin ko bu baax a baax ci liggéey bii di liggéeyu xadimatul Xidma ak jumaa ji waaye rawatina seen bii nga xam ne mooy seen seen CMT TV wala MKTV. émission gàggantiku nag e, jàpp naa ne présenté nañ leen ko ni nga xam ne ni lay doxee saa su nekk. Euh, dañuy seet benn tomb boo xam ne laaj nañu ñëw gàggantiku ci ngir ñi ko xamoon nafar ko waaye ñu ko xamagut euh, xam ko muy luy jariñ lu ñuy jariñ ci suñ mbiri àddina ak suñ mbiri ëllëg euh, xam ngeen ne nag niñ ko baaxoo ci tomb yu bari niñ ko tàmbalee woon ci laab ak julli ak yu demee noonu noonu lay wéyee waaye ci biir émission yi ñu def mbokki jullit yi nekk ci àddina bi eh, numéro bi ñu leen di jox nga xam ne ci la ñuy yónnee laaj yi dañ ci yónnee ay laaj yu bëree bëree bëree bëri yoo xam ne da ngay xam ne nit ñi tamit seen diine ñor na leen eh, ci biir koor gi tamit laaj yi ñëw tamit eh, jiitu woon émission bi ñëwoon ci émission bi tax na am na ci yoo xam ne ci biir koor gi lañ ko tontu am ci nag yoo xam ne tamit des na yu bëree bëri yooyu yëpp mi ngi fi incha allah mbokk yi nga xam ne ñu ngi yónnee ay laaj daal ñoom ñëpp. ñu daral seen xel ne laaj yi fi ñëw yëpp incha allah euh, sëriñ Mbàkke Abdourahman dina ko tontu waaye tey jii nag moom dañuy ñëw ci loo xam ne mooy actualité bi te ñu jub ko muy ponkub lislaam bu am solo muy xajjullahi l bayt muy muy muy aj aj makka euh, ñu war cee indi ay laaji gàggantiku yoo xam ne bokk yi laaj nañ ko mu doon loo xam ne jàpp naa ne suñ ko tontoo ñi nga xam ne war nañoo dem siyaare ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ren ñëpp danañ mën a xam ci laaj yooyu ñu laaj nan la ñuy mën a joxe seen farata jooju ak nu ñuy lu ca war lépp ci seen wàllu jaamu yàlla ñu xam ko euh, kon su ko defee sëriñ bi dañ lay jox kàddu gi nga nuyoo nuyoo bokki taalibe yi xam naa ne it namoon nañ jataay bi lool ndax euh, yónneen yi ak message yi bari na lool di laaj émission gàggantiku moom kañ lay ñëwaat kon mbokk yi ñu maase déglu sëriñ Mbàkke Abdourahmaan mu nuyoo aouzu billahi min alsheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam. sëriñ Abdoul Ahad maa ngi lay nuyu di jaare ci yow di nuyu mbooleem mbokk yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun ci jataay bi di leen ndokkeel di leen ñaanal jàmmi àdduna ak alaxira di sàkku ñu ñaanal ñu ko di tàmbule nuyoo yeeg siyaar yëpp na ci Mawlaana Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñaan suñu boroom gën ko sàmm gën koo dëgëral waaye di nuy mbokki lislaam yëpp di leen ndokkeel ci al ashhur al xurum yi ñu nekk weer yi nga xam ne weer yu sunu borom warmal la te ñetti weer yi sësaloo weer bu ñu nekk moo ci jiitu zul qaadati zul xijjati muharram ak bul far suñu borom waxoon ne ay weer la yoo xam ne bu dikkee bu leen ci tooñ seen bopp na borom xam-xam dañuy wax ne topp ci yàlla mu ëpp njëriñ waaye mooy ci yàlla mu ëpp lor kon weer yu barkeel lañu ci ndokkeel julli yëpp di soññi suñu bopp den yi ñu gën cee góorgóorlu ci lu baax ndax lu baax da ciy fulu waaye gën cee moytu ab safaan ndax da ciy fulu di ndokkeel baax nag daayiratu Muxaddamatul Xidma tàmbale ci sëriñ Afiya Limaam di leen nuyu si Ibla di leen ndokkeel di liggéey bi am na solo loolu dimbalanteeg mbokki julli ni ci luy tax ñu xam seen diine ndax ni mën a am seen ngërëmul borom jërë ngeen jëf. barakallahu fika jërëjëf sëriñ Mbacke Abdourahmane ci nuyoo bu am solo boobu euh, ñu ngi nuyu tamit sëriñ Abdou bu Bousso ak sëriñ mi nga xam ne mooy réaliser émission bi ak sëriñ Bàcce ba mu nekk ci caméra bi. ak bokk yi nga xam ne ñoom lañuy àndal ci liggéey bi muy sëriñ Ablaye Lo ak euh, sëriñ Cheikh Bousso euh, su ko defee kon sëriñ bi euh, laaj bi nga xam ne mooy laaj bi njëkk kii daf day laaj daal dafa bëggoon nga waxal ko nga leeral ko lan mooy maanaa yi aj dëgg-dëgg ci lislaam ak lan mooy ay ngëneelam. jërëjëf sëriñ Abdou Lahad noonu nga ko waxee jamono yi toll jamono yi waajal dem wuy ji woote yàlla la sunu borom mu ñu aj néegam hmm. baatub alxajj ci arab jublu lay tekki wala ziyaara kon tukki boo xam ne tukkib jaamu yàlla la aj màkka tukki la boo xam ne tukkib jaamu yàlla la farata la boo xam ne ponk la ci ponk lislaam yi juróom ba yonent su yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam waxee ne lislaam dañ ko tabax juróom ponk ba ca mujjoon mooy waxañ ci baytillahi waaye nag dañ koo tënk ci ko ko mën sunu borom wax ci alquran walillahi ala nnaasi xajjul bayti man istataa ilayhi sabila yàlla faraltaal na ci nit ñi ñi ko man ci ñoom ñu aj néegub yàlla ñu dem fa jaamu yàlla gañ fa santaane def ko kon sëriñ Abdul Ahad aj ponk la ci ponk lislaam bi hmm. nga xam ne bu mu lislaam doon am mbaar daal juróomi keno yu ko téye benn bi mooy loolu rek doy na ko nga ndax hmm. ndigal yàlla loo xam ne hmm. yàlla digal lu ne yiwa ca hmm. ci daf ga loola nga ci bañ koo daf te man ko war koo daf waaye teewul nag bari na ay ngëneel lool fii ci àdduna bu àllaxira bokk na ci ngëneel yi bokk na ci jaamu yàlla yi gën ci jaamu yàlla Abu Hurayra radiyallahu anhu nekk na ci benn xadis ne dañoo laajut islam ne ko ayul amali afdal qaal imaanu billahi wa rasulihi qiil summa maada xaal jihaadun fi sabilillah qiil summa maada qaal xajjun mabruur li hmm. ma laaj ne ko jëf yu baax lu ci gën mu gëm yàlla ak yonentam moo gën ci jëf yi ndax bu amut leneen lu am du baax hmm. mu ne ko ginnaaw loolu bu ci gën mu ne ko jihaad ci yoonu yàlla ginnaaw loolu bu ci gën mu ne ko aj aj gu ñu nangu mu aj gu tegu ci yoon gis na ne doy na ko nga jaamu yàlla yi jëf yu baax yi nga xam ne ñoo gën a baax fa yàlla ëpp aw yiw eh, am na fenn fu waxoon ne umra al umratu kafaratun eh, al umra ila al umra kafaratun lima baynahuma wal xajjul mabruru laysa lahu jazaun illa al janna nee dañu bëgg at mu jot bokk ma ne nga def ko umra gu ne ak morom ma dañ lay jégal bàkkaar fa dox si diggante bi waaye nee na aj màkk moom bu ko yàlla nangoo amul fay gu ci yàlla fay gu du tàbbal borom aljanna mm. faaw tabbi aljanna loolu siblaat ci wax mm. euh, ngëneel nekk ci aj makk ndigalu yàlla mu diggee ci yiwu rëy am na fenn fu wax ne ku aj makk dafoo fa af safaan waxoo ko boo dellusee da ngay mel ne ni bala sa ndey di jul ba ngay dóoru ñu adduna nga meloon ni nga setewoon ci bàkkaar masha allah man xajja walam yarfuf walam yafsuq rajaa ka yow mi wala wala dat ko su Muhammad day setal na ci ay bàkkaar di yokk ay darajaam di ko sëf aw yu boo xam ne mën na koo jariñ fii ci àdduna wala xel mu di ko jariñ bu faaw kon lu bare ci nekk ci ay yiw hmm. jërëjëf sëriñ bi euh, mel na ne tontu boobu leer na macha allah euh, suñu ñaareelu laaj bi kii dafay laaj ne naka la jullit bi di waajale ngir joxe farata ju mag jooju nag maanaam jullit bi bëgg a dem aji dal nan la war a waajale ngir dem aji jërëjëf sëriñ Abdou Lahad ab jullit de bu yàlla farataale ci mu aj war naa waaj dafi ko waaye moom suñu borom da caa nekk ko mën faw ñu leeral ne aj màkk du ñëpp la war aj bi nga xam da ngaa toog ba yàlla la man loo la ko kooku la ñu wax na aj màkk la ca gënit moom boo ko mënee ren demal nga defe ko ren ndax xamul luy xew dewen saa yoo ko mënee rek dama def ko mm-hmm. yow lañ waxit la war mm-hmm. léeg-léeg nit koo xam day man a aji di yóbbu ay way juróom lu baax la waaye na fekk mu def farata yi ko yàlla sant mu nag ay way buñ amut yàlla santu leen aj yow man nag yàlla aj loo boo defee sa farata bu noppi nag koo mën a dimbale mu def lu baax lu la yiw weneen yiw la rawatina bu dee say way jur wala say mbokk waaye na xam ne yow miñ sant aj yaa war a aji bala nga ajal kenn loolu dama mel ne na war nañ cee taxaw bu baax ndax da ngay gis ne ñoo xam ne dañ naan ah man de dama bëgg yóbbu sama waajur ba noppi sama waajur sama waa sama baay sama yaay doogu aji waaw ah, bu fekkee seen waajur yaayam baayam amul hmm. aj màkk waru leen amul bàkkaati bu ko deful yow mi nga xam ne yàlla defal na la xéewal nga mën aji am lépp yow la aji war njëkk bala ngaa yóbbu kenn waaw boo mënee ànd ak ñoom baax na boo ko mën a demal nga aji ba ñëw wala ngeen ko aji la nga def nga lu baax la war waaye dimbu la nga ñeen lu baax leen loo xam ne warul leen waaye bu ko defee am yiw hmm. kon ñu bàyyi xel lu baax a baax su ko defee nag comme ki ko man moo tax danañ bàyyi xel ñi nga xam ne léeg-léeg bëgg aji dañu dugal ci di lebaka borom xam-xam dañuy wax ne kenn santul kenn muy leb ngir aji mag toogal ba mu war la su la xasee war nag li jiitu ci li nga war a jàpp mooy jàppal ne ak jaamu yàlla ngay def du tourisme du tukki ngir wax ndaw xam nga seytaan dafa bari doole ba yu baax yu bari da caa laxasu ba nit ñi dañ cee sonn ba noppi duñ ci jot duñ am yiw ndax yuñ ci raxu ci bokkul aj mi daa mel bokk na ci yi nga xam ne adduna ca dugg a dugg ba euh, nit dana daf lu ne ngir aji te jamono yi mu koy def fekk na mu bàyyi yu ko gën a am solo. Hmm. fu xaw yi dañuy wax ne bu la leeroon ne mënoo aji màkk te faata waxtu aj màkk wàcc bi la. Hmm. ndax julli juróom moo moo gën a foor aj bu màkk. am na ñoo xam nag bu ñuy waaj di lijjanti aj yi waxtu yu dul jeex la ñuy ci soo xam te du benn du am benn ngàntaanaka ne ci dox ak damaa yàkkamteeg mm. diw sàngam la war a gis bëgg su ma su ma yeexee de du ma ko gis ak yu kenn fekk yow yaa ngi yaa ngi dëgmal loo xam ne baax na loolu de mm. waaye yaa ngi sàggan la ko gën oh. moo tax yëpp mat naa bàyyi xel bu oh. defee nag bu la yàlla baaxee ba nga ba mu war la ñu dimbali la ba nga mën koo defe di ko defe boobaa nag jiitalal ixlaas mm. xam ne li ngay def jaamu yàlla tukki woo ngir wanoo ji tukki woo ngir tourisme da ngay jaamu ji yàlla bëgg boo fa jógee set ci bàkkaar hmm. loolu yonent bi wax ku aj màkkate dafoo fa fisq dafoo fa rafet hmm. kon waxoo fa lu waxuwut defoo ko fa loolu moo tax bàyyi hmm. su ko defee boo ñibbisee daal dem na ko ixlaas la nga xam da ngay jaamu ji yàlla loolu nag adduna day dox léegi ba nga xam ne yu baree bari da ngay gis ne rek nit ñaa ngi aj waaye ñu ngi ci rax leen dul mm-hmm. danañ forcé di def te mënuñ ko buñ àggee it def nga ne ku àgg foofa sa yitt yëpp su la war a nekk mm-hmm. sa sa borom nooy fexee ba ndigalu yàlla li nga def ko nam ware te doo am benn kii mag ñi ridwaanulaahi alayhim buñ masaana di waaj a bokk na ci lañ leen nga yittewoo alal ba lenn lu lënt lu leertu ci ne mm-hmm. dañuy bay mbay moo xam ne dañuy sàmmoon sàmmoonteeg lépp bu ñuy demit bor bu ñu mas a am dañ ko fay. kon ki yor bor dafa wut aji euh, ndax xam nga bala ngaa man hmm. dangay am alal joom ki am bor boo xam ne li alal joo xam ne lii kat mën naa aji. Hmm. waaye ay bor a ngi fi yoo xam ne boo ko ci fayoon la des mënut a aji. Hmm. aji ndax yow fay bor yi moo la war àq jàmm yi danga ko war a fay boo tàggu ñëpp seen àq nag boo demee bu baax moo tax mag ñi ab jëdesit nit ki aji màkk xamu lu ci xew. ki yor bor tañ tañ tañ may ko biyee nag. ci loolu laa jëm si daa bëgg wax ne. xam nga nit ki bu ñu la mayee bee fii nii taxut aj makk war la. Mm-hmm. bu la neexee dem bu la neexee joxe ki am alal joo xam ne moo ko fàggu ya ko yëpp def na ko mu des loo xam ne mën na ci aji ci jàmm dellu si war ci jàmm ko aj makk bu ñu la mayoon bee nga xam ne benn ñu ne la benn nga ajee ci màgg delloo ko. Mm-hmm. bu la neexee nga aji bu la delloo. xam kooku it danañ xam ne amut alal ju mu yor ju muy fay bor. Mm-hmm. daa ma ko bëgg a dimbale ajale ko waaye joxu ko xaalis waaye man mënu aj beneen la ko jox. Mm-hmm. waaye moo gisee mag ngi daan bàyyi xel fay booy door dem ñoom. Mm-hmm. jeneen jubloo taxoon. Mm-hmm. mooy yow mi dem màkk xamoo da nga del seen la te yóbbaale àq yoo xam ne du rees bu ëllëgee sa borom doo jàll mukk te laajul la ko mooy àq yi nga amee sa moroom jàll. rawatina bor nga xam ne ci njëlbéenu lislaam yonentu yàlla Muhammad alayhi daana teew faatu mu dikk ba tiim ko ne amee na bor ñu ne waaw. bàyyi na fi lu ko mën a fay ñu ne déet mu ne julle leen seen waay mun na ma jullee borom bor daf na ko yoon benn saxaab yi daan ne ko maa gàddu bor bi mu daal di ñëw jullee ko bi lislaam amee doole la wax ne ku faatoo te bàyyi bor man maay fay bor bi mag ñi moo taxoon yooyu dañu ko def ngir booy dem ak yenn bañ la topp dooyam ci euh, fay bor yi waaye da topp nit ñi baalu leen ak mboolem ñi ngi daan seqal mag ñi seenu tàggoo doon toon tàggoo ngir bëgg yox la dara dañ leen baal ak nit ñi ak sàkku ñaan fu ñu dem la man ko dama gis euh, daf ponk bu lislaam bi di sàkku nga jéggal ma ak yi dox sama diggante yow waaye ñaanal yàlla ma dem jàmm ñibbi si jàmm mag ñi seenu tàggu loolu mais barax ci yàlla nag la li ñuy gis li ñuy gis diw sangam tàggu naa ko waaye jox mu dara nangu <laughs> nangu mm. kon jàpp naa seen sellal <coughs> xalaas xam ne jaamu yàlla la mm-hmm. da ngay wuti wuy ji woote yàlla wa addin fi naadi bil xajji yaatoo ko rijaalan wa ala kulli daamirin yaatiina min kulli fajjin amiq yooyu ñu waxoon itam Ibrahima alayhi salaam yonent yàlla Muhammad ñëw ñu fàttali ko ci loolu moom ngay wuy ji yàlla la woo ngay wuy uh-huh. loolu bu ko ni kii sóoraalee la ko war ci lépp lu mën a teg ci àq yu tegu diggam ak moroomi jaamam mu teggi ko ma ne fay bari mu fay leen ma ne jéggulu tooñ yi àq diggam ak moroomi waa këram ay ay xaritam ñëpp. jégg baal leen ak sàkku ñaanal ko. mu dem ci jàmm. bu defee fexe ba it la mu fa yóbbu lépp nekk lu lew. Eh, yonent Yàlla Muhammad alayhi salaam noona nit a ngi sonn lool dox jóge fu sori dëkk ay loxoom yàlla ñaan di ñaan waaye lu ñaan yàlla du ko nangu ndax lu arab la lekk moom la sol yàlla du nangu ñaanam mm. kon bàyyi xel ne yu baax yow fay def fexe ba la nga yóbbu nekk lu lew man ñu bokkoon ci leen gënoon a ñor loolu am solo sëñ daal ko daal xam ne da ngay jaamu ji yàlla lépp loolu dim ci nga mën a dem jaamu yàlla na ko waree loola nga bàyyi ko xel lépp lu dàqoon te jaamu yàlla googu nga teg ko ne bàyyi xel ni li ngay def nit ñi yëg ko ak ñu di ca wax amul njëriñ ndax defaloo nit ñi yàlla ngay defal barakallahu fika loolu moom leer na lool ci eh, jullit bi bëgg a dem yi ni muy waajale boppam kon suñu ñetteelu laaj bi dafa mel ne mi ñuy tàbbal nag ci biir aj gi euh, bokk mi dafay laaj mu ne naka la jullit bi nga xam ne dafa euh, nam ma aj naka lay armale ñetti xeeti aj yi ñetti aj yooyu nee na daal bëgg na nga ràññaleel ko genn ku nekk naka lañ koy armale waaw jërëjëf sëñ Abdoulaye xam nga aj jaamu yàlla goo dafa am ay ponk mm-hmm. ponk yi nag nga xam ne mooy yi nga xam ne benn bu ci manqué aj amut hmm. ñeent lañ armal gii nga wax moo ci jiitu hmm. ay benn la dox safa ak marwa wër kaaba gi bisu tëbëski ak taxaw arafa hmm. ñeent yi benn bu ci amul rek aj amul fii armalagoo tàmbalegoo aj bu gi jeexoon te doxoo safa ak marwa ajagoo tawaafoo tawaaful ifaada tawaaf bi ñu def bisu tabaski ajagoo li ñuy wax taxaw arafa nekk arafa ci bi ñëwee tey la juróom-ñeent fa ci tabaski nga yenn fa ba guddi gi dugg loolu fekk defoo ko ajoo ñeenti ponk yooyu boo ci bàyyi rek sa aj baaxul benn rek aj gi baaxul hmm. armal nag moo ci jiitu moo taxaw taxawaay yéene hmm. maanaam yéene aj la ñuy tuddee armal hmm. nit ki euh, bu ko yàlla baaxee ba mu war a aji màkka armal moo jiitu ci ponk yi armal daa am waxtu ak barab buñ koy defee waxtu armal mooy bu weeru ramadan jeexee ashurul xaj muy tàmbali benn fanu kori diggi ak fukki fanu njëkk ci tabaski diggante boobu lañ bëgg bu armal nga armal ci boo ko defoon lu jiit dana baax de waaye dañ koy si bul armal daal te weeru keru te tërul bu ñu woor ramadan jeex na ñu ne weer yi moom guddi googu fi la armal tàmbali mm-hmm. koré ba fukki fan yi tabaski bañ ne juróom-ñeenteelu maanaam yow mu arafa hmm. ci la armal fajar jotee hmm. jeex na bu fajar xasa jot moom ndax faw war ngaa armal ba taxaw arafa bu hmm. fajar xasa jot yow mu arafa jeex na daal moom su bàyyee bañ ne bañ ne suba la arafa sax bu ko neexee mën naa dem waaw demoon armal waaye yor yorub arafa moom boo ko defut moom waaw de du bëccëg guddi gi guddi gi ba fajar waaw ah, buñ ne suba la arafa waaw maanaam xam nga tey nag juróom-ñeenti fan ci arafa nga nit ñi arafa la ñuy yendu nga ya man boo fa yënduwut yow. Mm-hmm. guddi gi boo fa ñëwoon masalan tey mën ngaa bàyyi ba cinq heures de matin nga amoon ay fekk na la fa. Mm-hmm. nga fas yéene dugg nga ci añ. macha waaye nag bu fajar xasee jot te armaloo nga xam ne dugg nañ su tabaski bi suba tabaski bi moom déwénati kon diggéen bu loolu mooy mooy waxtu yi waaye da am barab it kenn ku ne ci foo jóge bu dee waa Sénégal ñaari ñaari anam yi ñoo fi am. Mm. ñoo xam dañuy jur avion wàcc Madina ñooñu ñu waa Madina ñu bokk àtte abaaru ali lañuy armale maanaam tey bu nekkee madina ba fay jógee lañ la gën mooy hôtel liñ nekk nañ fa sangoo uh-huh. sol fa seen yére armal dugg ci kaar buñ dikkee ba abaaru ali dañuy wàcc am na ay wanag am na jàkk xëy na kum neex bëgg gën a sësale cangaay li fekkee oto bi yàgg na ci yoon bi ak armal gi mën nga xëppoo waa ndox bu ko defee solal sa yére armal dem ci jàkk ji julli suñu ñaari rakka yoo xam ne da nga ci jàng fatiha suratul kafirun fatiha ak suratul ixlaas boo sëlmay dugg ci kaar bi bu kaar bi déparé na nga fas yéene li nga bëgg a def dégg nga. Euh, càngaay loolu sangu rek lay doon wala sangaay. sangu la rek moom. Hmm, sangu sax nga sangoo saabu. Hmm. bu ko defee bala ngaa sangu it watal kawar yi nga war a wat yëpp lewe ko ndax boo xasee armal dootoo wat kawar dootoo lewe a dagg we hmm. foofu ngay waajale yi nga xam ne ci biir ak gi loolu ko mën a def. nga sangu ba set kon ak saabu xam ne nag booba yi nga jë sangooti leew yi saywee wat yi nga war a wat yëpp mhm. sol sa yére armal mhm. boo agsee ci barab boobu ñu wax muy abaran yi dem ci jàkk julli fa ñaar rakka duggaat ci kaar bi bu kaar bi déparé nag ci ngay fase fas ci sa xol jàpp na ci biir jumaa ja la ñuy fase daal ñu ngi bàyyi loo xel mbokk yi bu baax baax mhm. baarakallaahu fii ka euh, sëriñ bi dafa mel ne waxtu wi sax moom jël nañ ci lu ëpp xam naa laaj yi des na waaye dañ lay jox nga tàggoo su ko defee ñu demaatee ci suñ beneen jataay mën a mën a mottali incha allah. ak jërëjëf suñu blaat ñu ngi lay dellu di la siyaar bu baax di nuyu mbokk yi di la ñaanal tawféex ñu hmm. yàlla defal ndimbal ñu nar a yi yëpp yàlla yombala leen ko te nangu leen ko. Hmm. defal leen xajjan mabrura hmm. am solo waaye nag di dénk sama bopp di leen dénk yi wii ñu xam daal dañuy jaamu yàlla. buñ ñuy dem nañu xam buñ ñibbisee nañ xam dañoo jaamu joon bari na yu ci nit ñuy ràngoo ko gàlloo kenn santaani ko ak jaamu yàlla la moo aju mu joon nga dem julli ji ñibbi suñu bokkaat léegi nag daa gën da daa gën a kii ndax lim laaj ci alal tax mu gën a rëy mm-hmm. waaye nag ku ko jàppee noonu ku julli joon bu ñëw la mm-hmm. foofu nag ku fa dem ko maa ngi baa ngi xel mbokk yi nañ fexe ba bu ñu fa naan lu sam-sam boo xasee dugg ci aj yoral sa bidon yóbbaale ci xaram bul naan lu ndoxum sam-sam yiwu nen la ba ba ngay ñibbisiwaat bu indi sëriñ ci it indiloo nit ñi lu gën sëriñ ci ndax mu sam sam naa tàngal mi aajo sëñ ñi Abdoulaye ñu ngi lay sant. sant mbokk yëpp di leen ñaanal jàmm. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. barakallahu fika sëriñ Mbacke Abdourahmane yal na yàlla defal tawféex ak taysiir eh, tomb yi leer na lool macha allah ci mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan ak di ñu topp. kon ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal di sant mbokk yi yëpp yi nga xam ne. ñoom lañ àndaloon muy sëñ Abdou bu so ak sëriñ Bàcc Ba euh, di leen joxaat beneen numéro incha allah ndax euh, li nga xam ne mooy yi ñu war a jàngat ci aj des na incha allah xam naa dinañ ko mottali ci suñ beneen numéro bii di ñëw kon ñu ngi sant mbokk yi ñu doon seetaan ci seen émission bi nga xam ne mooy gàggantiku euh, di leen ñaanal tawféex ak taysiir Eh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam